jërë ngeen mbokk mbokku Leewtoo TV comme ni ñu ko tàmm di defee fu amateur nekk ñu fekk ko fa euh, jox ko suñu micro mu wax lii li lim xalaat ci làmb tey nag ñuy jogaat euh, ñëw fii ci Gibraltar fekk fi ay amateur yoo xam ne nii dañuy topp làmb à chaque fois bu làmb xewle dañuy dem bouger donc mérité nañ ñu jox leen suñu micro ñu waxtaan ñu war fi dajal nag dal ñoom Modou Sarr ñoom euh, Ndiakhou ñoom Modou Séeréer ñoom Fili Omar Omar Omar Ngom ñoom ñëpp ñu ngi fi léegi ku nekk dana la jox sa micro bi nga euh, nuyoog d' abord euh, les internetu Leewtoo TV. ñu dugg ci dernier sujet bi muy affiche bi taxaw gis nañ fi Ama Baldé ay Bawol Bawol ngeen ñu ñu ñu démarré ci Tapha Tine Boy Niang. am wax dëgg si yàlla moom boo déparé wu dama ciy kontaan parce que man aw ma lu dul Bawol man ginaaru bawol bu doon xeexu muusu Dakar sax ginaaru bawol laay faral. mais Tapha waaw Tapha moom li mu war a ñëwee mooy xam ne ñun waa bawol yépp ñoo ngi ci ginnaawam. te nekkawul ñu ci lu dul ginaaw ci ginnaawam lu dul di ko jàppale. di ko yéene bu bés ba yàlla may ko ndam lu rëy lu set guy. am na beneen affiche ak Balla Gaye 2. waaw ñëw rek comme amateur rek. que hmm. le meilleur qui saa tafaatin euh, Boy Niang affiche boobu bu neex la bu jàddu la parce que wax dëgg yàlla moom la moo leen boole daal mën naa ne mais nag comme li Omar Sène wax rek ñun tafaatin moom sunu grand la boo xëyee def noo yëg trop xam nga lu muy def dañu ciy boole. dañuy déggante ak moom chaque jour xamoon nga lu ñu nekk itam da ciy jàpp ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla mi nga xam ne ni mooy may ndam yàlla may ko combat may ko ndam bu baax a baax si combat bi xam nga te am nañ si yaakaar bu baax. am nañ ci yaakaar bu baax ndax ñu ngi ciy liggéey mu ngi liggéey bu baax te instant bi ñun Bawol ñu ci ginnaawam la amoon bu njëkk xëy na amatul léegi moo xam nga rek Tapha kenn ku ne xam mën naa ne Sénégal tey boo doon wër majeure partie bi ñëpp na ginnaaw moo des wala nangam nangam mais loolu amatul léegi barke alxuraan léegi ginnaaw gu wër la yor instant yi Bawol non pas sax mais maanaam tam instant yi ni mu àndee ki mbokkam nga xam ne Bawol gépp ñu ci ginnaawam tey par rapport loolu amul woon comme kobaay yëla jiitu xam nga mais instant bi na xam ba nga xamoon ne instant ñun ay raxam ak ñëpp ñëpp kuy bawol bawol yaay si gën a tafaatin maanaam mbër mënatu koo jaay dara la ko dara boo ñaa bu jour ba na xam ne lépp dëgg la nañ ko jàpp duma ko daan ko incha allahu rabi <laughs> d'accord ñaa mhm. mhm. daal jàngat bi ma ciy def mooy ñun moom tafaay suñu lépp ndax mooy suñu champion waaw tafaa mooy suñu champion ñun waa bawal gépp waaw ñii nag jóg ànd ak moom di ay rakam ñëpp topp ci ginnaawam ñun nag li ñu koy ñaan mooy na indi fulaak fayda rek te xam ne Bawol lañ ci ginnaawam bu bis baa mu wane boppam xam ne lam da koo soxla dafa daa bokk ci lam waaw daa bokk ci lam nit ki nag dafa war a góor góorgóorlu rek nag parce que fi mu toll nii moom foo ne lam tudd tafaatin li ci des nag moom moo koy complété te matale ko bilaay walaay bëgg a dëgg rek nga bëgg a dëgg Assane sama ñii bu ñu meloon ni tafaatin tey jii kon dootuma jooy dara ci lam barke Sëriñ Tuubaa te jooyuma dara ci lam sax parce que xam naa li ma yor billaahi waaw bi nu ginnaaw combat boobu komba bu neex la combat boo xamante ne ni moom promoteur bi ko tëg muy Pape Thialis tëg na combat bu neex a neex a neex a neex parce que Tapha da di luur ba pare te luur yi xaw koo raw tuuti xaw na ko raw sax dañu ko ñëwut a jël dañoo ñëwut a bëreek moom waaw dañoo ñëwut a jël bëreek moom Boy Niang itam xale la xëy na liggéey na ba toll ci fi tafaatin toll mais ñun daal dañuy ñaan yàlla tafaatin daan jël bu set wit parce que comme li booy séréer wax rek mën naa ne tafaatin mag la moo xamante ni instant yi bawal instant yi dafa boot mbëri bawal yëpp xale yëpp képp ku ci am combat noo man di toll dina ñëw sumeeku kon ak yow te loolu amuñu ko wan te instant yi am nañu ko kon daal comme li comme li ma wax rek man jàpp naa ne tafaatin la mu ñàkkoon instant yi am na ko parce que bawal gépp dañoo bootu bootu ci kawam ñun xale yi ñun ñëpp ku ci mel ni ay booy séréer yi ñi xam nga bawal daa bari champion ay mbay gi ay njaaytin saal bambeyin ay kéwélin wuli dëyin xam nga ay champion kese nekk bawal te ñun ñëpp ñoo bokk daal ñoo bokk dëkk bokk lépp ndox muy naan sax ñoo ko bokk kon xam nga ñun ñooñu am loo xam ni ànd doo nga war ci suñu diggante parce que ay mbokk la ñun ñëpp ay mag ak kese la ñu Tapha dafa jël ñëpp boot leen ku ci am combat mu ñëw taxaw takk ak ngem même boo ko mënta daan sax dina songo yow pour nga ko yëngal rek loolu donc bénéfice la ñu daal dañu koy ñaanal yàlla may ko ndam lu set wit ci kaw booy ñaa ba mu yóoti waat roi des bi jël ko parce que bawal dafa war a jël roi des arènes ko war a am parce que yeyoon nañu ko ay champion doo nga fi nekk bawal boo gisee lam ji boo génnee ñi fi dëkk bawal champion yi dëkk bawal ñi fi a waaw sama dernier mot di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi may safoo di ma ndàmboo rawatina waa Bawol gépp rawatina waa réew ma fa ma dëkk juddoo fa yaroo fa di nuyu ñëpp di nuyu sama rakk ji sama doom ji parce que sama doomu mag la di ko xam ne moom xam nga rek nu naa gone bu loxoom setee mën naa yeba ci mag kooku moo nekk ci moom di nuyu waa Medina gi ma dëkk ak rëbës gi nga xamante nii fa laa jóge sama nijaay ñëw fa ngumba waa garam place bépp di nuyu tunu bawal fépp bawal bawal ne rek maa ngi laa jib di la jox loxo di la balu ak di leen sant yéen ñii ngeen dem a dem a dem ba yor ay télé télé télé télé moom laa di ñaanal di woo promoteurs yi nag naa leen nag njaaxum dina am instant yi mu ngi xasan de dafa jot instant yi nii gars yi chaque jour ñu ngi woote looy xaar looy xaar looy xaar gars yi daw avance yi nanu ko bàyyi te bëri ak man ku bëriwut ak man ren nag déwén day gën a miti waaw parce que man maa ngi ci sama liggéey. wasalaam di nuyu booy séréer kii sama rak la ñoo bokk benn baay bu ñu jur. maa ngi koy nuyu moom dafa am combat di ko ñaanal yàlla may ko ndam lu set bii ci barkeb alxuraanu karim ak sama rak beneen rak bi nekk caayooy booy géey ñoom ñëpp maa leen di ñaanal yàlla may leen ay ndam ba yàlla def leen ay samp yooyu mag ba nu raw ma sax loolaa leen di ñaanal. asan xanaa di leen siyaar rek yéen te di leen baal bu baax a baax di leen leen di sant bu baax te leen gërëm di sant sama ñaari papa yi kii sama papa la kii sama papa di sant sama grand Omar mais bu baax kee sama mag la ñoo bokk ndey ak baay aada waaw kee itam maa ngi koy sant bu baax moom laa dëkkal si kaw Baye Fall bu baax di sant sama waa kër gi yëpp ñoom yaa ma yën ñoom Sall Diagne maa ngi leen di sant bu baax di sant grand Pape Dialis nag maa ngi koy sant bu baax sama waay la sama lépp la ndax dañuy déggan téléphone daanaka ñaari fon ñu mu tegal dina ma woo téléphone bilaay lii waxoon na ma ko nee na ma woon sama gars yi ñu ñëw seet si la de te bu gars yi ñëwee ba pare man maay taal sama oto ñëw seet si la waaw kon nag ñu ngi koy sant bu baax di sant sama gars yëpp leen jéglu bu baax a baax jërëjëf. waaw di kontaanaat bu baax rek xam nga di leen sant yéen tam déplacement bi nii kenn ku ne xam ne weeru koor instant yi demee nii xam nga déplacement yi du yomb quoi ñu leen sant bu baax seen. ni ngeen woowee ba ñëw nii daal xam nga comme ni ko sama grand jaaxum waxee rek kee sama mag la sama lépp la mooy ma kenn lu may roy si kenn man royu ma si mbër dara su ma la su ma xamee ma day ginnaaw yàlla moom la xam nga ma leneen lu may jël si beneen mbër xam nga di sant sama sama rakk sama doom day jee ñu Modou am yi nga xam ne nii ku ma xam-xam ak moom ay sama lépp la sunu grand Omar Sène ñu ngi koy sant bu baax saa bu nu amee combat da ciy jàpp yëkkati alalam xam def si daj si ay coono yu méttee méttee méttee day dem ba dem dëkk sax danga ko yërëm barke Serigne Bamba da ciy daj lépp lépp def si xaalisam def si léppam xam nga et puis xoolal di woo nekk ñëpp sama combat may war bëri le 6 juillet incha allah le 6 juillet maa kaw si waa su combat sox gàmmu gay maa ngi woo waa Bawol gépp su ma limee damay juum maa ngi woo waa réew ma waa Réfane xam nga Kombelane Touba non Kaaw Cissé xam naa yàlla defal ko jàmm rek ba suur ba maa ngi koy pare te xam naa moom itam dama ngi pare. non làmb moom ñun dañuy ay xale lañu dañuy nekk si yoon di pare lépp. nekk suñu grand ak njaaxum lu ñu leen ñu naan la xam nga ñu ngi pare si bëri ñu ngi pare ci xeex en tout cas daal bàyyiwuñu dara moom. di lancer daal en tout cas comme boo xaayee suñu bakkan lañ si gerte jaral nañu lu ne moom na ko bàyyi xel moom incha allah rabi na ko bàyyi xel bu ko déggee. na xam ne maa ngi koy gis ci naa ma demagul sax demi final <laughs> deuxième tour lay daanu boo ko jàppee moo xam ne ko dara. waaw li may tàggatoo mooy di leen ñaanal rek ngeen dem ba seen site bi nekk ay télé. waaw di leen jéglu ci déplacement bi ku ne xam na ne weeru koor dafa xat fi ngay ndogoo ak fi ngay tëdde benn la waaw di ñaanal sama ñaari champion yi nag man li ma leen waxoon rek te départ ba ñoo di samay champion di ñaanal sama rak la sama xarit la ñoom ñaan ñëpp sama ñaari rak lañ ñu ma jege sama xol lañ parce que Serigne Sall li mu wax rek xam li kee wax mu ne xale bu loxoom setee mu mën a yeb ki mag xam nga ñun maa ñoom maa leen mag mais ñoo gone wandoo ñoo defandoo lépp village fii bàyyi di ñaanal moom yi yàlla may ko ndam lu set guy ci digganteem ak Kaaw Cissé di ñaanal njaawam yàlla may ko combat waaw di ñaanal moomee moo sama rak la sama xarit la parce que yàlla duñ tàggoo guddeeg bëccëg lu ma bëgg rek su ma ko nee kar Moodu oto laa soxla day ñëw gaari sama buntu gaare yóbbu ma fu ma bëgg a dem di ko ñaanal xola yàlla may ko fan gudd ba mu nekk transporteur di am ay oto waaw wasalaam. waaw kay. suñu grand Pape Thialis moom la ñuy woo parce que moo tëgg suñu grand Tafatine ñu ne bëgg mu ñam nu parce que il faut que mu nu parce moom yi mooy mbërëm te xarit la voilà daal sax moom ci du question mbërëm nu boole suñu doom la ñoo bokk fu dëkk bokk bawal mais Pape Thialis da war a ñëw nga ñam nu waaw parce que ñun daal ñam nu ay supporteurs noble la ñu yor ci kaw lay nekk di defar mu baax nun ne ci suuf di gën a defar <laughs> waaw man moom instant yi nii su ma sañoon ku ma bëreel Alioune Seye 2 waaw ah parce que ay moroom laa daan man ci Alioune Diop laa jóge bu Lamsaar moom laa daan grand combat man maa ngi ci cinq grand combat cinq victoire waaw tey lour donc laa laaj daan xam nga ne daan Alioune Seye 2 daan Baara Ndiaye bu Faas daan Boy Faye daan Yaro baax daan booy naa xam nga loolu ay luur rek la kon Alioune Seye numéro 2 na ñëw lu bëre Pape Thialis seet si ma waaye mag Alioune Seye numéro 2 combat bu neex la waaw parce que yow bëgg naa laa bëreel quoi parce que say combat day neex kon mi ngi loolu la woon ñu ñëwoon fii Gibraltar fekk fi ñoom Modou pour waxtaan ak ñoom ci làmb waxtaan wi neex na am na solo noonu ngeen ko Leewtoo di leen ko def defalee à chaque fois ñu leen di jox rendez-vous ci yeneen i jotaay jërë ngeen jëf waaw juróomi caas juróomi caas.